njaay macha allah mooy loolu nit ñaa ngi jënd muy góor muy jigéen ñu ngi jënd waaw isaan yow macha allah laf cat moom. ah bii moom impact na moom macha allah. man de jaay lii sama gorom moo tax ma koy jaay mais chaque année rek dañuy ñëw jaay si fleur Saint-Valentin parasi neexul dara neexul fi ndax affaire ki dëkk bi ni mu naqaree rek dëkk bi. nit ñi dañoo ragale ñëw di jënd nit ñi dañoo ragal sa dugg oto moo tax gis nga ci suba ba tey ñu ngi fii waaye jaay ñu dara waaw damaa dox ba sonn billaay jaay ñu dara dañoo dox ba sonn wër ba sonn mais jaay ñu dara ñu ngi nii toog da daan neex heure daan fekk ma ñu pare ba ñibbi ñu jaay ba ñibbi mais fi nekk ni dëkk bee dëgër dëkk bi metti na nit ñi lu ñu lekk lañ tal waaye taluñ lu ñu jëndee fleur njëg yi ay 3000 ay 2000 ay 1000 francs yooyu kese la njëg yi baaxul waaw prix bi baaxul ndax nit ñi amuñu xaalis bay fay prix bu baax prix bu seer. njaay bi ça va ñu si kawam mi ngi dem nànk-nànk rek. daaw de moo gën a neex ren xam naa ak manifestation yi moo tax nit ñi xaw a ragal.